soxna si nuyu naa maa la gën a kontaan. maa ngi am baax. li nga waa xeeb naa ko sax. sa teewaay fii lan la. waa fi sama góor rek. bien xam nga moom dafa baax macha allah. laf jag kooku nee la tey beeg alquran karim xam nga dañ koo sellal nii sax mais ko kenn du moom ci maam barke yurinti bi xam nga rek sellal rek daal def ñëw jàppale suñu góor. sa gis nga de yaa noo tudd maam laa tudd maam maam laa tudd nga ànd ak say sët waa gis nga ma ànd sama délégation rek def ko mbaax barki yunit te xam ne moom vie bu xewlee moom lépp lépp la ñuy bàyyi daal def dérangement déplacement ñëw ànd ak say say nga dox ñëw waa gis nga ñoo ngi nii di ñëw <laughs> fay naa la jàmm ji waaw maa ngi si jàmm bu baax def rafet na de ah, merci seen mbër xew la ngeen ngeen def lu mel nii ah moo ko jar rek Baye Mandiaye moom dafa baax amul benn problème billaay wallaay moo tax mu def lii nga oyofal de. ah gis nga dañ ko oyofal nii la def suñuy baal a xam. yow ah ah man dama koy ñaanal rek yàlla jàppale ko fi mu bëgg tamit moo ko xam yàlla ko ci yàlla jàppale moom doon champion loolu rek laa koy ñaanal. di nga jot. ah. di nga jéem non est-ce que du ma ko bàyyi ak taay fii di rek xam nga damaa xaw a diis. <laughs> bañal loolu. may bàyyi ko taay fii di rek. merci yaboy. ah. Kéré Fass nuyu naa la. fay naa la. jàmm ji. ça va. neexalee nag. seen bër xew la ngeen def luy ngeen def lu rafet lii. waaw tey moom kontaan nañ trop billaay. ndax moom lu sedd suñu xol rek la bëgg wax dëgg yàlla. am nañ mbër bu ñuy wër moom ci dëkk bi koo xam ne ku baax la yëg na ñëpp yenu nañu ñun suñu mag la waaye dafa baax am benn problème barki yàlla bëgg nañu yiir nañu yërëm nañu bëggul ñu taxawaaru si benn chaque dimanche dañuy woo réunion ñu dem amul problème daal lu ma si moom am na des. moo tax def nii. dama maama raw liy def ko. waaw jëlal na waaw waaw man la Papa Doumbou mu jël teew gën a ñeme no problème no film no femme y a pas de maladie. résultat année race doole ndaw bilaay walaay nii la rek lay mën a demee Baba moo xewle waaw lii rek lañ war a def waaw ndax moom xolam daa rafet waaw. sama xewle ko nga def lu rafet lii ñëw. waaw lii lañ am ndax xolam daa rafet moom minute mérité na lu nekk waaw lii rek lañ mën a def di wax gars nañ ma xaar maa ngi ñëw léegi léegi. gars yi nekk ci net bi di baanu baanu waaw nañ ma xaar maa ngi ñëw. ku fekk wax Baye Mandiaye lay mu gën a yokk entraînement rek. waaw ku ma xool xam pare na. waaw loolu lañ nga ñaanal. bon sens. waaw kontaan nañ. salaamaaleykum. maaleykum salaam. jàmm. Baye Mandiaye rafet. ah bëgg ko rek sama mag bu baax rek la. mu ko bëgg trop. wax si moom. ah baax na moom. am na yitte amul benn problème mën na nuyoo mën na kaw mu am na yitte moom. moo tax nga def seen rafet li ñëw. waaw pour jàppale ko na sama mag bu baax la. bon sens. maa ngi li nga def ni kan moo ko waral. bis bi nga encore neex na benn instant yi moom. pour ma instant sama xol moo fees. def li Baba Ndiaye moo tax dana nga def. saay moom lu mu bëgg suñu bëreen bu ñu bëree yàlla na ko yàlla mayal ndax muy daan di daan di daan di daan daal am na ma wax fee baax na xoolam yaatu na moom ñëpp jë sikk naa ñoom jàmm kaf ak ree billaay moo waral tey nga def nga def lu rafet lii saay moom sama xol bi saay moo fees bu nu maa wax sa xol a fees moo sens. fay naa la Mass. naka jaamu idi la. SBT Média. Tawfekh Gane namu naa la. naka jaamu ji. waaye sant yàlla. nga woote lu rëy lii say say fan si club la lu lii. lan nga si am yëg-yëg. waaw sant yàlla rek. di nuyu ñëpp ñu fi teew di son sama fan si club bii. di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. dañ xamal dañ koo def pour waajal saison rek. ñu moom mooy loolu ay doomu guy gi lañ. sib nga xaw ma nag lu dul ñii ñoom ñoo si jàpp ñoo dooleel ñu ñu def ko pour rek waaju ñu ko sax dañ ko def pour ambiance rek waaw xamuñu moom bu ñu wootee Baye Fall yëpp ay ñëw waaw mooy loolu yaa ma gën a xam waajoo ko nii ñuy def lu rafet nii sax nag doole xale yi dañoo pare waaju ñu ko sax bàkki yàlla buñ ko waajoon neneen lay demee buñ ko waajoon nu muy demee waaw yéen boo leen ko waajoon day gën a mais Mass di sant ñëpp di sant ñii aw ma seen fay su ma wootee luñ jàpp dañ koy bàyyi samay nit lañ barke alxuraan di woo di tamit waa guy gi yéen xamal ni maa ngi si combat maa ngi waajal yaa ngi dégg Baye ma Ndiaye année bu bees leneen lu bees xale bi màgg na dégg nga ma. si jotaay bi nii nii nii nii taxaw ni looy yóbbante sa adversaire Agogo. aw ba lu ma koy wax ñun di xamal ne xale màgg na man. mbër bu ma fi nar a daan sama bakkan ngay jël lu garaaw laa dafa am lu topp sama ginnaaw da caaxaanu ma waaju sax na ko waaj maag moom biir géew moom bakkan bakkan ci biir géew xam nga ci biir géew nu ko gars yi di waxee man xale laa te dama xam doole yaa ma gis ah bàkki yàlla kooku taxu maa jug sax ñii nii ñii buñ ma yabee yóbbu ma bàyyi ma njaay na ñeme mais ñii buñ ma yabee yóbbu ma maag ci biir géew su ma ko nee jaaral fee fa lay jaar. yow say supporter ñoo yem Agogo waaye yow yemoo Agogo. man nee xale bu ndaw am fit man am naa fit am naa doole dégg nga ma am naa fit am naa doole te mën naa bëre ragalu ma man ragalu ma dara. Agogo ma man ragalu ma dara am naa fit am naa doole SBT xam nañ loolu sax dégg nga loolu. mag ñee koy jàngal mooy jàngal ah, noonu la demee nag. barke alxuraan. jaan ñun fi lañ dëgg diggu Johnson bi. ko ñu mal mala maan bi. gestul baax baay ne. fi lañ dëgg quoi ñun ragaluñ dara gis nañ lu ne. dara yéemuñu. fi lañ juddoo fi lañ yeroo. yaa ngi dégg gis nga yoo xew la gis nga ñu sañse ay plex lañ sol parce que ay tout tànk lañ ñun dara yéemuñu ñun ay baay faal lañ. foo toll si préparation ak pare naa bàcc Seydina Mohamed bu doon suba suba suba pare naa man préparé wu ma de. bu doon. suba suba pare naa xam nga ma wax Macky Sall moom laay ñaan quoi mu tijji ni suñu làmb ji ñun làmb lañ am làmb moo tax nekk ñu si di def naka sutul noonu dañu ko tijji nag balaa booy xam nga di def leneen loo xamante ni waruñu ko def ñun làmb lañ am moo tax sàcc ñu ak reesewuñu yaa ngi dégg boo juddoo fii defoo yooyu rek am na lu la accompagner mooy làmb. nañ si jàppale. ñu gis jeunesse bi say morom di jël gaal yi di dem bitim réew tey jii loo siy wax. waaw ah, mooy li ma la wax rek yow tey nit nit métier boo ko téewee te ñi ngi seen i métier ñun ñi ngi toog defuñu dara ma la suñu waay bu yàggee gaan boo gisee lu dee da nga koy doggali te ñun bëgguñu loolu noonu quoi ay xale lañ am nañ doole mënoon nañ dugg si naka sudul noonu mais dañoo toog di dund làmb nañ ci jàppale mu tëjji suñu làmb ji ngir yàlla war a suuli ñu ay xale lañ yaakaaroon dul làmb na si jàpp mu tëjul ñu ko wala waaw ku moom tijji na soirée lépp a ngi daw ma la sumuwaay làmb ñun moom lañ am quoi. su ma déggee nag comme moom tijji na lépp kon nañ tijji suñu foom yi. ko Youssou Ndour waxee na ko tijjilal làmb ji booy dañoo nam làmb ji noonu la demee ñu dañ koo nam ay xaba xale xale buy entraîné chaque jour chaque sa doole di yokk sa waaye tamit bu làmb tijji bu yàggee jaan gis nga du ma mujj di agréé sama fan si bi sax. mu yaakaar si club bi ñii nii ñii loo di wax at loo di ñaax. man aw ma ñii man ñoom ñoo bokk ndey ak du du làmb sax boo ñu fekkoon si koñ bi ma ak ñoom dunduñu sax ay affaire làmb duñu waxtaan sax waxtaanu làmb. billaahi dañoo far ma ak ñoom bokk ndey ak ku ci mel ni Dieng sam fils Salamay sama jabar di ndey sey kii mooy Séeri As Nabu dimbali ma Nafi. géwal a ngi nii kii moom mention spéciale sawaay sonn nañ ci bis bi ñoom lu ne lañ dégg ndax man kee mooy nday nday bu bàyyi ma njaay mention spéciale man ñii ah yàlla laa leen di bàyyil ñii ñii ni ki ba ki sama yaay la ki moom macha allah yegg asalaamaaleykum mbooloo yi maa ngi nuyu ñëpp waaye turam ak santam vie mi mënuñu koo fay ñun moom lañu am mooy suñu Balla mooy suñu Modou mooy suñu Eumeu Sène rek Vieux dafa yaru Vieux daa baax Vieux dafa xam mag Vieux dafa xam xale heure bu xewlee ñun ñooy togg mbana yi ceeb yi fukki mban ak ñaar la ñuy teg teguy faari may ga te ceeb bi ñëpp a ciy lekk dañuy lekk ba suur naan ba manni mu dem indil ñu ndam ñu kontaan kon Vieux mën nañu koo fay. loo ñaax loo ñaax en tant que yaay xanaa mu góorgóorlu gom boppam xam fu mu teg tànkam xam fu mu jógee muy ñibbisi xam mooy kan te bu soobee yàlla loolu jaruñu koy wax bi yee ndax bi na ko. xale di muy ak a góor combat boo xam ne coow loo ko wax ak loo wax adversaire ah, am. na mbër na moytu am na gaynde gaynde goo xam ne ne ah. Eumeu Sène a Balla Gaye kii kooku duñu moromam. daa mel ni yéen yéen a ñeme Agogo waaye moom ñemewul Agogo. kooku duñu moromam kooku dem tëddi. tabet yow yàlla la ñun rek tabet rek du ñu morama ñun waa guy Fatou Magal ragaluñu dara. lu ragal toog di jooy. barke sëñ Babacar Si Malick na xam ne jënd caaroy kaw gi ragal dëkku fi. guy Fatou Magal gi ragal dëkku fi. il nga ñun ñi ñun ñi kii soose pire la man pol pire la kooku na xam ne jàkkaan nag te tey tey bu xoolee su demee tëdd fii tam bi du nelaw ah su demee tëdd tey du nelaw ah ndax dina ne waa guy faati mayga bu yeboo ma ma xool sama doom la kii daa yaru kii mbalam yi ñun ñoo fay nekk kii mbalam ñun ñoo fay or bu xewle ñun ñoo koy togg ñoo koy togg ñoo koy ay nag la fi rayal ñu ñu togg fukki mban ñaar fii si moom la commencé kon fii yaay suñu champion te bu soobee yàlla ndam rek lay doon. NNK bu tëddee na ne la asalaam. Eh, eh, eh, dama noor. maa la fay. baax na de. aywa bàyyi tooñ. bàyyi tooñ. tooñu ma de. bilaa la tooñ nag. looy wax tey sa mbër sa champion loo koy wax loo koy bilaay man kii moom damay doole di ko ñaaxaar rek parce que ñun xale lañ macha allah am na jom mën na bëre gëm na entraînement wam barke Serigne Saliou mosuñu def suñu dara dem ba stade réccu ko. lépp loo xam ne ñu ngi koy def fi la bu ñu eggee fee daf ñu koy fajal billaahi dañ koy ñaanal yàlla rek ca kaw ca kanam ne su lu baax barke Sëriñ Tuubaa sama xol daa fees mënu ma wax di sant nag sama xarit yi yëpp billaahi ñi ñëpp parce que la Baba Ndiaye booba léegi bàyyiwuñ ma fu ma nekk ñoom fa billaahi lu ma woote dañu ñëw fekk ñu si wóor na yàlla ñu ñëpp ay jàmbaar lañ billaahi ma gis ngeen def seen oto si rafet yéen waa mafia bi billaahi li waatuñu ko sax dañoo bett rek wóor na yàlla mais beneen yoon dañ def garaaw bi laay wóor na yàlla. sama xarit sama xarit ah, ñun daal kontaan kese la ñu billaay wallaay parce que Baye Mandiaye mi dafa baax te daf ñoo bëgg ñun tamit loolu lañ ko bëggee xale bu ndaw la day bëre wóolu na dooleem billaay kontaan nañu torop kontaan nañu. loo wax. ah ñun moom kontaan nañ vraiment kontaan nañ ndax Baye Mandiaye moom suñu mbër la. dafa wóolu boppam mën a bëre barke Seydina Mohamed kontaan nañ trop trop billaahi yàlla xam na loolu mënu maa wax sax na sama xol dafa fees dell billaahi kontaan nañ trop moom mën na bëre macha wóolu na dooleem lépp ñu dugg ci moom rëccuñu ko billaahi yàlla xam na loolu ba mu dalee bëre ba nëgë ni ndam rek la ñuy indil billaahi yàlla xam na loolu sans défaite billaahi kontaan nañ torop suñu xol sedd na. seen kooku noonu na nga def. maa ngi fi jàmm maa ngi si jàmm ba. sa mbër. ah sama mbër lu may wax si moom dara ndax ñun xel bu dal rek la ñuy demee moom ndax wóolu na boppam gëm na boppam gëm na li muy def ñun suñ tëddee rek dañuy nelaw ba bis ba jot ñu dem amuñu luñ siy luñ siy ndax xam nañ ku ñu yor ah. mu ndaw si koñ métti na waa métti na trop mais dañ ko maîtriser ndax ñun ak moom mbapat la woon ba fii dawuñu si dara darañ si dem ba jeex sëriñ Saaliw lay loo wax sa waay mbër mu xam la wax sam waaji nu mu doon demee mbapat ba fii naka demee ñeme na entraînement mu ngi lekk lu neex nekkul si koñ bi du taxawaalu du coow di def leneen du naka su dul noonu dul lii kat leneen moo koy firnde wane ne sa waay nekkul woon si loolu lu ci des akagoo laa koy wax man moom dina mel ni sbt point li nga wax nga ne akako. man ak moom mel ni sbt point com dinaa ko duma dinaa ko daan wala ma ne ma la wax yoon bu mu jaar baaxul akako maa la koy wax akako. akako akako akagul akako akako akako. yaa koy wax. waaw sunu mbër ne moom lañ koy wax moom mooy na góorgóorlu rek waaw ndax ñun xam nañ ne moom jàmbaar la te champion ndax yàgg nañoo nekk ak moom borom baax la yi tamit ndax bu doonoon keneen tey amaana lii lépp mooy loolu mais jom ak fulaak fayda moo tax mu am lii munoon naa tëj boppam wala mu téye boppam wala mu am neneen nu mu doxalee ak ñun mais doon doon Baay doon taalibe moo tax mu am li mu sunu mbër gaynde la xoolal tey xoolal lañ soxla champion la barki borom. Ah? tous ak a